jërë ngeen jëf mbokk internet yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan ginnaaw bu ma leen safoo ndamoo leen roo leen maa ngi leen di nuyu lu yaatu yaatu di leen kontaanee di leen wax koy toppatalee ache rek ci moo yi ci làmb yi ci célébrité yi ci loolu nga xam ne yéen a ngi gis maa ngi fii parcelle fan laa nekk ci pal biir global textile muy kan mi nga xam ne mooy Assane Fall bi sëñ Fall bi élément Cheikh Abdou Kaké bi waaye kóllëru taayeen tey ñu seet si ko bëgg waxtaan ak moom nee naa leen tey fii nii dara du yo ndax dañoo yeesalaat indi waaye yëngalaat dëkk bi ba pare am trophée kon ñu ñëw rek nuyu Assane ziyaar ko ginnaaw boo nuyoo énoti ñu daal salaamaaleykum maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk internet bi di am kontaan ak ñëw bii ngeen ñëw ci biir Global Textile di nuyu képp diaspora avec ñëpp ñi di am confiance si seen tawaay bi. ay ca Assane. bu ñu nuyoo ba dañuy ñëw rek ci global textile ñu gis global textile ak fi mu ci li nga xamante ni année deux waaw bon global textile ku ne xam chaque année rek deux mille vingt vingt trois ba vingt quatre dañuy change jour xar-xar kanam bi. doon mbétewu client yi. parce que ñuy mën pour global mun a rafet rek aussi rafet wala habillement bu rafet wala place de luxe client ñu koy def waaw ñu nekk ci liggéey bi amuñ ci laay suñu xool li nga xam ne moom mooy neex ki laay ñu si nekk waaw. foo jógee ak li nga xamante bu bees bi muy trophée bon ren yàlla def waa ñu la ci waa Global Textile ñu no si trophée yi anam bu set liggéey bu la liggéey boo xam ne askan bi bàyyi nañ ko xel ba tax ñu nomi ñu ren jox nañu si trophée yi di jël trophée yëpp di ko delloo client yi te di ko gën a dolli sant yàlla di gën a takk digg di gën a góorgóorlu na nekkaat jàpp. meilleur jeune entraîneur fii nga xamante ne Sénégal ku mu ko jonganteel yi rek yaa ne jël na ko. Euh, ñu mënoon euh, bànneexu kii la nga mën a fly bu mën a nekk. amoon nañ ne Sénégal ñi gën a am na fly pour bawon ko tuuti mais buñ génn comme dem lu côté Aziz bi duñ am day jeex pour laa dañuy daw ci bëgg dañuy li nga xam ne gis seen bopp ci li liggéey bi waaw. succès bi li ma gis ni ci Asra global. bravo euh, bàyyiwuñ ko xel sax waaw bàyyiwuñ ko xel parce que tout temps rek dañu jàpp ne maam liggéey bi moom mooy am benn flambon koy wane. aussi li mën a mën a jàpp ak coow nii damay war a su ma jàpp mooy dama gën a góorgóorlu. gën a sàggane lu mel ni global bi waaw waaw waaw ah bon waaw ah. ah, parce que bu teg si pare nañ ko nañ ko. loolu lu ma ko mën mooy dañ lay ñaax nga góorgóorlu waaw te incha allah bëgg nañoo góorgóor gën a gis suñu bopp xam àdduna adduna bi sax ñu mën a gis bopp si nga xam ne ko ak global si ñu ngi bëgg ñu dégg fu ne ci àddina waaw dañuy ñëw événement yi nga xam ne mu ngi jub si ñu suñu mbaayee ni kon it sa waa kër dañoo xewle ku ne Assane Fall ni sëñ Fall ni sëñ ne Baye Abdou nooy waajee ku ne xam ne sama diggante axlu laayan man yàlla seet ne du ma toog Euh, lu mel vendredi ak dimanche su ma demul vendredi dinaa dem dimanche dem ziyaara ji waaw toog itam diir naa dem Touba dem ziyaara ji yi moom def naa ko farata waaw laayeen moom yàlla ma euh, jaxasoo ñoom ndax sama tanteer mun naa ni sama waajur foofu lañ ko denc tout le temps dama fay def yàlla def na wala maak ay axlu sa bopp tout le temps Ibou Seyni fii lay fréquente lu bëree bari ak ñeneen nañ xam waa surtout maamu dañuy ñëw fii ñu njagóor yi jigéen lu mel ni Kazu Rajab ku ne xam ne sama diggante Serigne Fallou Aw parce que si ay njabootam yu bëri sëñ Karim ñëw na su sëñ Fall nekk taawam ñëw na fi yàggul daal ah ñoom ay xadi di lañ ñaanal ñoom ñëpp ak ah, sëñ yàggul daal moom ñëw na ba fii nii ñëw ñaanal ci bërëb kon ñi nga xam ne njabootu sëñ Fall bu ñu dagg seen yite ñëw ndax suñu jëmm yu xeebu yi kon du amam dara xëy na ñi ñun taalibe te am na nañ na ci gën a góorgóorlu waaw daa boo moom ñi ngi sant bi ngi avancé bu baax parce que ñu ngi def lépp li nga xam ne moo ñu war ci wàllu li ñu koy def. lan ngay yi. di ko ñax suñu mbokku ndaw yi ah ñu gën a góor gën a focus si Sénégal te xam ne nañ bàyyi xel réew mi réew mi am na lépp waaw nañ bàyyi xel loolu tamit ñu koy ñaax kilifa yi nga xam ne moom ŋànk réew yi dañu di ndaw yi te bàyyi xel yéen ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi waaw ji góor di am loo xam ne am na ñoo boo xam ne pour mu dabi dañuy ñëwaat rek ci li xamante mooy bés bi nga xam ne moo ñu fi indi bi nga xamante ni moo ñu produit la bis bu rëy muy xale yu am jom yu ko waree ci diggante Boy Malick ki nga xamante ni mooy Thiès bi rëy yëg-yëg bi lan la ak lan muy sa ak ki nga xam ne kañ ji ndax tuddee drapeau yombul ah, bon ku la tuddee drapeau daanaka tuddee na la doom rek nekk la wéy bu dul fay waaw kañ ji euh, moom nekk na jeune boo xam ne képp kuy ndaw war nga ko mën a bàyyi xel parce gis nañ ci njàmbaaram si nañ si sociale bi nga xam ne mu ngi koy def. nañ ci nangoo muñ gis nañ si nangoo doomu aat loolu gis nañ moom mu nekk koo xam ne loolu jar naa bàyyi xel ci ndaw kon tey ji su demee na ma drapeau loolu maa mu fayam. dañ koy ñaanal suñu borom maam fay yàlla lañ koy bàyyi mu fay ko borom kàttanal ko maam yow defal ko tawfeex ku yaatu. ayca Mawli Mathia Mawli Waalo Ali Penda Pala Bay lan nga ñuy indil jour boobu la kat. moom am drapeau bi. dafa def ma jël lépp. jox sama waajur dèjà moom mi nga xam ne ma damay ànd ak ngel estat xam nga loolu nekk na lu rëy doom ju nekk. ñaan yàlla ci lépp la mun nekk. sa waajur ngel si te jàppale waaw mu ne Cheikh Mohamed Fall Mouri di ko ñaan sam yokku waaw yokku yokku tan bi waaw parce que mu ngi di faj aajo yi. tey dimbalee jaam yàlla yi kon kooku bu demee ba war a mun a dagg si minute si ay diir gu gàtt ndax laa gunge si benn bërëb loolu dekk na loo xam ne tax ne man maa ko njëkk a def waaw mu nekk loo xam ne moom métti na waaye sant yàlla sant na waajur boo waajur référence nekk na waajur boo xam ne waajuru royukaay la barke waaw di ànd ak ma koy tàmbale si yow yéen ñëpp waaw ànd di invité ñëpp nga xam ne yaa ngi nekk ci Assane Fall nekk sama sœur sama mag ah ñu ngi sañoon bu nga ñu waaw ah, si bis bi. Macaron jardin moo am problème. su ma gee làmb du nga xamante ne rek. daar koo ak booy ñu gis ah, bo ñaaw ah, ñu gis. Tapha Siteu affaire yi dëgër te yow combat nga yow li Albourakh sax xam. kaw ko bon dañu ñëw aussi wax témoin li ñu jaaxu sori parce que ñun ñun dañoo booleeg mbër yëpp ñu jàpp ñëpp waaw ñu Zarko ñëw na sama kër ñaabu ndaw ñëw na ñaabu ndaw comme xale yi ni fi nekkee noonu la fi nekkee woon kon bu demee ba nga xam ne làmb boole may xaalis ndam ñu mënut a génn gaal ah ndam ñu génn Sénégal tey jii bu ñu amee ndam ñu nday ak képp ku xool ama seen Gris Bordeaux kenn daaxu leen ko tey ji ñoom ñoo dend kër kon loolu yëpp euh, repère la signature show la di nga show pour jaay sa di après bu jàllee nga jàll si leen di leen ñaan defal leen jàmm may leen tawféex ñu góob si jàmm ah ku ne. mais seen dernier face à face bi ñu bëri dañu dal ci kaw Niang bu Ndaw jot nga kaa oo nga ci bopp wala nu mu demee am na nag. waaw xam neex dégg déggante wuñ nag parce que jotuma après la gars yi ñu ma ko wax. mais yàlla xam ne loolu TikTok daal laa ko gis gis na ba léegi. mu temps dégg xam na ne muy moom muy Zarko sax. xam nañ ne maam jot yu bëriwul. daa may daw daw daw daw daw ba yow doo tal yenn yi mais mu xam ne ndaw la. xam na li mu bëgg te xam jom te ko bu demee ba may ko sens mu bëree moom lu mel ne làmb na ko jox cëram. waaw na ko jox ba bésu combat. mu woon ko lim liggéey waaw. Lazare ko bàyyiwu ko ci nee na ko du ma te dinaa la won ne du ma si ndax man maay man man la ñuy téye euh, ma noggatu xale. <laughs> waaw Zarko Zarko waaw loolu euh, jikkoom la. waaw nekk Baye Fall te li ngeen xamul ñoom ñaar sëriñ ñoom ñaar ñoo bokk sëriñ ñoo bokk ñu yaakaar ñoo bokk ñu léemoo kon làmb rek moo mun loolu kon dañuy ñoom ñaar ñëpp laa ñax parce que ñun saa lañ ñoo mun a berplay ah wan Sénégal yëpp exemple xam ne mun na dox. Zarko ñaaw ndaw Zarko ñaa àdduna bu doxam danoon rêvé. dem bay bëreeg Zarko kon tey bu demee ba nga xam ne Zarko may na ko sànq. moom da gën a sa xam lu mu ba ñuy waaw bawal dañ waaw waaw waaw boo mm-hmm. dañoo bokk matière dañoo bokk matière bëri ñu bokk ndaw yoo xam ne dañuy dem Tapha toog na diir bëriwul mm-hmm. day joué si carrière c'est normal ñoom ñu war a mën a bëri seen biir wane seen doole ñu dëkk parcelle di nag Tapha Tapha nekk moom sama moom du gëj fii mm-hmm. di ko ñaanal suñu borom mu gën

day jëli moom day jàpp na ne ku kanam rek war na mën a am si yow ndam. kee tam bokk bokk na si mbër yoo xam ne dañuy suivre adversaire pour mu mun la kaaw si làmb day waaye lu ne ragal naa bu jaxasoo moom <laughs> bëri day feeñ laa gën a gis waaw bëri laa gis do xeex mun na ñàkk ñàkk du na ñàkk ragal naa waaw gën a feeñ waaw boo xoolee doon na kii dañoo sutanti tuuti mais ñoo neexoon nañ doole parce que gis naa leen si ñaar may dugg si rek ci dernier entre wayjur yi. Mhm. sa relation ak say wayjur sa relation soxna yi ak parents yi comme te liggéey bi. tar na aussi te yenn yenn saa yi du am. waaw xanaa waajur yi amuñ seen fay. tout le temps rek dañuy liggéey saa ñu xëyee dem liggéey rek pour jëm sàkk seen ngërëm la. tey jii ñoo dugg si loxo tiital waajur. wala chaque jour bu ñu xëyee dañuy teg daal ñu digg dem góorgóorlu liggéey di ñaanal ñoom ñi fi des ak ku lu waajur ah borom yàggal leen fi ba ñu fekkee ñu ndaw ñu ñëpp ñu fekkee ñu fekkee suñu njëriñ lépp lu ñu am mbébét suñu waajur rek yàlla na ko yàlla jàppale ñi nga xam ñoo dëdd nag yàlla na yàlla maam suuf ah, seen kaw taxare àjjana àjjana ñu fi ay ñu dëkk di leen ci bari nag di gërëm lu mel ni soo nga takk jigéen bàyyi ko sa kër mu lay gis bëriwul guddi ba guddi kon dañuy gërëm suñuy soxna samay soxna ni gërëm di leen sant baax baax baax baax baax te gis ne taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy taxawoo sama biir kër ak jàpp gi ñu te yàlla tax kon ñu sant di leen gërëm samay waa waa Pala moom waa équipe globale teg si lépp dama leen di jaajëfal waaw fi mu toll si li ma raw waaw li nga xam ñu ngi koy tarbiw rek dañ gis njëriñ seen i yaakaar gi leen rek yàlla bu seen yaakaar tas waaw loolu moom maa ngi koy ñaan waa global teg si lépp parce que global école la da nga fi ñëwee jàng soit boo mokkalee ber sa daara kon am nañu fi nekk ñu bëri ñoo xam ne dem nañ tey ber seen daara na parce que loolu rek moom mooy mooy sama fier parce que loolu laa bëgg waaw loolu laa bëgg waaw. lan ak mbokk di tàggatoo di ko tàmbalee parcelle bi ku xam na ne waaj ba sëb métti di parcelle yëpp maa ngi leen di leen tàllal loxo ngeen ñu. waaw ñu dem di woo Malika parce que xam naa ne Malika lañuy ñuy ndax sama waajur bu góor mënu ma ko ñëwee ma ko déplacé wu xalaatu ma ko sax bëgg na fa waaye man maa ko dul ko damay sàpp képp mi ngi ànd na ñëw nga ñëw Malika ñu dem stade yóbbu drapeau bi ànd ak mbégte te ko doolee sant yàlla bu baax di sant samay client bu baax baax baax ñu am rek waa Global Textile la waaw waaw ñaar ñëpp euh, dul man sax Global Textile bu lamlee dina leen jox ku si nekk dañ leen ko defal waaw waaw. mbokk yi loolu lañ leen indiloon xamante ni euh, mooy Parcelles Assainies ci Baal Textile ñu ko waxee sànq rek ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lali hôpitaux yi suñ borom fëgg seen bopp waaye di ñaanal ñi nga xam ne ñoom la ca gannaaw suñu boroom waat leen ba ñu dellu siwaat ci kanamu njaboot gi mais ñi ngi ñaanal lu yàlla dooli leen ñaanal bu baax a baax di kontaan di bëgg di kontaan ci ñi nga xamante ni ñu doon su di ñu bàyyi ay ca mbokk yi